بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم العارف الرباني والغوث الصمداني سيدي وشيخي أبي العباس أحمد بن محمد الحسني الفاطمي التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله عن جميع المؤمنين السلام عليكم بكي جلدي السلام عليكم yéen waa Sénégal tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bu baax dellu ca la ñu ko santoon ci ay jagle yu ñu jagleel te mbaaxam rek tax bokk na ci mu dugal ñu ci nattu génnee ñu ci tabaarakallaahu wante moom li mu digle mooy balaa ñu ko sant ñu sant ñi nga xam ne ñoom la jaarale ndimbal ci yow ba nga mën a génn fa nga nekkoon amul nag benn jaam boo xam ne yeyoo nga ñu defal la te santuloo ku ñu defal da ngaa war a sant Serigne Mansour si borom daara ji daan na wax ne mbaam rek ngay defal mu góofe la xam ne daa ko yaayoo waaye góor boo ko defalee mu sant la waykat ba dafa wax ne law kaana yastaghni an ash-shukri majidun li kathrati malin aw li ulwi makani lama amara arrahmanu bi shukri xalqahu wa qala ashkuruni ayyuha thaqalan su fekkonte ne am na koy doyloo sant yàlla la te yàlla wax na jaamam yi ne su ma leen defalee na ngeen ma sant kon nag bis bi bisu sant la ñan ngay sant ñoo xam ne la waykat ba waxoon ne sadiqi man yaruddu charra anni wa yarmi bil adawati man ramani wa yasfu li ida ma gibtu anhu wa arjuhu li naibati tamani mu mel ni ñu ñu fi wax yëpp firi ko day gudd tabaarakallaahu te wax dëgg yàlla leen fi téye ndax dañoo bëgg a tënk rek kàddu yi ci ak leeral lu lënd mu mel ni la sëñ Babacar si waxoon ne yàlla rabbi qadayta fa radaytu bil qada wa taxkumu fa xukmuka mada waaw taxkumu ma tacha fa xukmuka mada mu ne hal min munaadiin fa daaka gayri fa wattu amri laka naafil bay suñ Babacar si nee na yàlla rabbi yow sama borom xadayta atte nga la la soob ci ma fa raditu bil xada man nangu dogal bi nangu atte taxkumu ma tacha yaay atte lu la soob ci man te kat fa xukmuka mada sa atte ci man wéy na mënuma ci dara xas nga ko bind signé ko fokk mu am Cheikh Sidi Hadji si nee na yàlla signature am maa tey la tabaarakallahu ko neex lay def kon nag neex na ko ma dugg rëbës sëñ Babacar si nee na hal min munaadiin fa daaka xayri ndax am na kuy riposte bu yàlla dogalee mu ne fa daaka xayri kooku de du man kon nag kooku de du man wante dogal bi neex na parce que kaso du gàcce xam nga lan mooy gàcce la la kaso su dee ne da nga rey nit dugg kaso gàcce la su dee ne da sàcc dugg kaso gàcce la su dee ne da nga violé dugg kaso gàcce la waaye xandoor bu demee ci waar wàcc na kuy défendre yàlla ñu ne na imam nga tabarakallahu nga koy défendre diineem ji ba ñu xëy dugal la kaso ngir loolu wàcc la kon tabarakallahu ñuy sant yàlla ci loolu ndax bañ fa duggee man dong maa sañ a yëkkati sama loxo mais ña ca des ñëpp koo ci laaj mu wax la da lay nëpp du la nangoo wax la ko fa indi kon alhamdulillah ñii nga xam ne ñoo àndoon ak man fii saatil usri ci jamonoy jafe-jafe moom la waykat ba wax ne ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in aahadu awfu wa in aqadu shantu wa in kaanat innaama alayhim jazaw biha wa in anaamu la kaddaruha wala kaddu loolu nag ay jikko yu te yàlla defal na leen kon ñuy sant ñii nga xam ne tey ñoo fi wutu mag ñi ndax li ma leer mooy bu fi mag ñi nekkoon taxawuma wante nag naajum démb mënta wowal póotum tey ñi fi nekk rek ñoo mën a taxaw taxawaayu mag ñi gàcce ma taxawaay bu ne taxaw nan ko tabaarakallaahu ëpp nañ leen xas nañ leen dëkkal nañ leen fi ñu dëppul waaye ñoo am taxawaay rek tabaarakallaahu ba yàlla ubbi bunt yaa jëf yàlla na leen yàlla fay ah, Serigne Mor Dio Cissé mi ndigal laa àndeek moom ndax ku ne xam na ne Serigne Abdou Aziz Amin moo may yar ah, dama dégg ñuy wax ne moom kat da baalu man musuma baalu man musuma baalu man euh, samay mbokk ñu ngi ci diggante Jolof ak Saalum ndaw boo dégg Jolof benn geño la ndaw boo dégg Ndukumaan benn geño la kon ci réew mi laa dëkk kenn mënu ma génne yàlla dogal ma yaroo Tiwaawoon te ku fa yaroo am fit tabaarakallaahu ba noppi ñu tuddee ma Cheikh Ahmed Tijani al Maktoum tabaarakallaahu ku ne seedeel na ko fit bëri na fii ci lislaam loo xam ne moo ko xeex tabaarakallaahu ba mu yaatu góor gu baax ga di cheikhul islam Baye Niass jàppale na ko ci lu bari kon kooku leen ma tuddee Serigne Abdou Aziz Al Amin yar kon nag boo yaroo ci tabaarakallaahu diggante jàmbaar yooyu gaynde rek ngay nekk tabaarakallaahu gaynde rek ngay nekk kon ngeen jàpp ne musuma baal léeg-léeg sax ñu ne ah, ñu koy seet daw na lim leen wax gis nga journaliste yi wa laqad wassalnaa lahumul qawl war nañ ko xoolaat seen rôle dara ëpp ko solo ci société mais na sell na sell bu leen ci dugal mukk waxi neen waxi mbóorant bu leen ci dugal fen waaw bu bu sellee rek barkeel waaw ndax yàlla nee na wala qad wasalna lahumul qawlu journalisme dafa ñëw ci alquran kon li tax sëriñ bi wax na ko léegi ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxdanun mooy ñi féeteeg yàlla laa xawfun alayhim du ñu ragal buur mukk wala hum yaxzanoon du ñu dugg kaso ba jooy ku dugg kaso jooy rek doo waliyu yàlla awliyaaw yi dugg kaso kenn mënu leen imaamu Malik dugg na kaso boole ñu dóor ko ba ay sitam si ditam wàcc lu tax masala al masala la firi ci ne jigéen bu bu maanaam buñ la forcé nga fase sa jabar fase ba wérul buur bi ne ko mën ngay gaaruwaale waaw dugal ko kaso te buur aayul dag yaa aay abu jaafar al mansour moo doon buur ba waaye wali misra gouverneuru misra moo doon jaafar ibnu suleyman moo bëgg a neexal buur ba ci ne imaamu malik dafa ànd ak mouhamad an nafs zakiya ndax shérif la tabarakallahu te kooku dafa jógoon nekk opposant kon ñi bëgg a teqale diine ak politique mënta nekk ñi ñu fi jiit lor nañ leen ci politique te défendre l'islam a tax imaamu Malik dóor nañ ko tëj toog na ñaar fukki at ak juróom yoo xam ne dematul jàkk ndax dañ koo dóor ba ay siditam yëpp ayee mujj gi daawul sax nangoo wax li tax du dem jàkk ndeke dóor yee ñoo yàq sidit ba fu mu toog rek day tuur ndox te nee na boo tolloo foofu waroo toog ci jàkk ndax da ngay sobeel jàpp kon yàgg nañoo nitu nguur yàgg naa sonal tabaarakallaahu nitu diine ci ay intérêt boppam kot fan Abu Hanifa tëj nañ ko ñaari yoon tëj nañ ko ci ak dawlal umawiya tëj nañ ko itam ci ak dawlal abbasiya ñaari yoon lu tax moom itam dañ ne ko da nga ànd ak Muhammad an nafsu zakiya boo ci jógee imam Shafii Haroun Rachid moo ko tëj parce que daf ne ko da nga ànd ak alawi yi gis nga toujours ñoom li ñu bëgg ñoom buur yi mooy borom xam-xam yi na ànd ak nanu ànd ak ñoom bu borom xam-xam àndee keneen ñu noggatu kon ak taarixu yuidu nafsa lii fi xew xewoon na fi te taxul woon ñamu dal ñu ragal imam Malik masta ragal Abu Hanifa mas ta ragal Ahmad ibnu Han Imam Shafii mas ta ragal Ahmad ibnu Hanbal Mamun la ko mu'tazila yi jaxaseen ci xalqul Qur'an toujours ñoom seen i masala dafay dellu ci défendre diine ndax dañ ne alquran mbindeef la Ahmad ibnu Hanbal ne alquran du mbindeef mbindeef ci ay géew def ci ay géew jongante mu indi ay dalil yu ñu leen amul ñu jaxase ko ak buur bi tabarakallahu mamun moo ko njëkka a fitnaal yàlla dogal mu génn àdduna doomam mu'tasim fitnaal ko tabarakallahu ba dóor nañ ko dóor yoo xam ne wax na ñi ko doon dóor ñoo wax ne gis nañu lu yéeme ci Ahmad ibn Hanbal mooy dañu koy dóor di ko dóor ba gaño tubayam dog gaño gi dog te soo gaño bu dogee nga sol caaya sa tubay day wàcc te bu wàccee ñu gis sa awra mu ne yàlla défendre sa diine ji rek moo tax ñu may dóor maa ngi lay ñaan saay saay sii ñu bañ a gis sama awra ñi ko doon dóor ñoo ne gis nañ loxo bu ko wër ndombo te loxo bi bokkul ci ñoom di ko takkal gi ñoom kon kattan gi ñëw di ko takkal geñoo kattan mu malaaka yu ko ëpp a ngi taxaw waaye yàlla looloo ko soob mooy nattu jaamam mu muñ nattu bi tabaarakallaahu ba yàlla génnee ko su fekkee dañu ñëw fii ci suñu réew mi maam borom Touba ñetti guddi ndakaaru kaso yi mu def fii nee na du ko fàtte ko bu muy sangu suuf muy kaso yu metti ñu jël ko génnee ko réew mi fu ne yóbbu nañ ko fi ba looloo waral màggalu Tuubaa gi lu tax défendre diine kon tabaarakallaahu suñu demee ba jamono ñëw Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu jël ko dugal ko rëbës gii muy sama turandoo tabaarakallaahu Senghor di ko génnee mu ne ko kaso bi ma daxal waaw Senghor dafa mujj di ko saraxu pour mu génn ci kaso bi mu ne ko xanaa xamuloo ne kaso àjjana la ci boroom xam-xam na la ci xalaatkat waaw moo tax man ci kaso bi def naa benn nuuniya ndax comme Serigne Cheikh sama turandoo la am na benn mustarshid bu ma seet si ndeysaan bi mu ñëwee daf ne ma tur bi mat na tur bi mat na ma ne ko lu tax mu ne ma fii la ñu dencoon sa turandoo ma ne ko ah, li ko gën a matal nag mooy nuuniya la defoon def ko ci baxru kaamil man tam def naa nuuni def ko ci baxru kaamil nuuni bi mu def ci baxru kaamil daf ko def ci jooy ay jikko yu rafet ci turandoom fa ilayka yabna muhammadin naadaani xiyamu tuxaqiqu jawhara al insaani jikko yooyu mu jëlee woon ci Cheikh na tiijaan yi giiru dundam moom la doon jàngale ba ñun ñi ñëpp ñu defaru ci jikko yooyu suñu politiciens yi yàq nañu ci ndaw yàq nañ ko complètement xale yi gërëm amatuñu repère loolu tax may yëg ne Sénégal a ngi jooy ndax mag ñu baax ña ñu amoon ñàkk nañ leen ndax daañu amaat relais ma ne bakatil bilaadu li xayrati shubbaani wal xusnu min daaka al bukaa abkaani qaalat bi lutfin ayna ashaabu alhuda wal rushdi wal islaaxi ahlu zamaani man jahadu fi llahi mithla muhammadin wa sahbi asadi lwada alfursani man baayacuuhu linasri diini illahi fi sidqi almahabbati baycata alridwani hum nuxbatu alqarni alnabiyi muhammadin xayri albariyati sayidi alakwani ruhamaau fi ma baynahum ashidda ala al kuffaari ahli shirki wal awthaani man jahadu fi llahi xaqa jihaadihim li hidayati l insani bil qur'ani bi ma waxee loolu ne réew maa ngi jooy jooyul koom-koom de ndax am neen pétrole ak gaz xam nga lu muy jooy mm. jikko yu rafet ya nekkoon ca mag ñi moom la jitul ci ndaw ñi te kat fa innama al umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu nation buñ ko dee naw jikko tax moo tax ba ñu waxee sëriñ Abdou Aziz Al Amin ne ko Tiwaawan dañu tardé ci wàllu tabax ndax yu bari amu fi mu ne Alaaji Malik ñëwul woon pour tabax dëkk mais dafa ñëw pour tabax nit kon Sénégal problème bu nit la ñu am yéen nit ñoo ñu war a mën a représenté assemblée nga xam ne ay nit lañuy doon dañu doon ay rab di taxaw ci ay table di saagante bay wéq jigéen ba nit moo ñu war a mën a représenté ci justice bi nga xam ne dafay àtte ci maanu du doon ñetti àttekat fi nekk ñaar ñi ay tooñkat la ndax kenn ki dafa topp bakkanam ki ci des dafa xamul dara loolu tax muy toog yonent bi nee na ñaar ñooñu safara la muy jëm kenn ki rek kay dugg aljanna kon atte ki ko war a def mooy ku xam atte te maandu waaye ku xam atte te maanduwuloo soo attee tooñ te ku tooñ dugg safara su fekkee xamuloo ci atte dara waaye fexe nga ba ñu def la attekat ngay atte loo góorgóorlu góorgóorlu pour atte ci dëgg doo ko mën ndax xamuloo dëgg bay atte dëgg moo tax kooku itam safara la jëm te itam loolu la ñu tumranke kon ñun problème mu nit la ñu am nit ña yonent bi yaroon ci njub ak maanu ba ne inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani saxaaba yi incarné loolu tabaarakallahu loolu moom manqué fii ci réew mi problème mu nit dañu am ban nit lan war a mën a présenté mu yor réew mi yorin wu maanu loolu pour moo am defe naa ne bu ñu ko séentoo ñun ci suñu génération du mën a ne il fallait ñu waajal ndaw ñi ci suuf tabarakallahu yar leen defaraat jikko yi loolu mooy tax tabarakallahu ñu rupture mën a am tabarakallahu su ko defee li ñuy wax naan système bi système bi système bi du kenn ñun ñii la suñu jikko yi ñoo bon lu jomaay baax baax baax baax jub jubal jubbanti lu mu ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg te ñi ànd ak moom jubuñu mënta dem kat ñun ñi ñëpp a yore kër léeg ñu ne kër borom kër gi ilimaan la waaye léeg-léeg génne génnee tuxkatu yàmbaa ci biir kër gi génnee agresseur ci biir kër gi ah génnee jigéen juy taxawaalu ci biir kër gi ndax loolu dafa yàq mbaaxu borom kër gi déedéet wante njaboot bu jub tabaarakallaahu mbaaxu yàlla lay doon kon nag am na loo xam ne dañ koy ñaan ba yàlla defal ñu kon développement Sénégal mooy ñu defaraat ndaw ñi yar leen moo tax ministère yi ñu war koo saytu mooy éducation ak enseignement bu ñu leen saytoo seet ña ko war a yor ñu jox leen tabaarakallaahu danañu mën a am benn génération boo xam ne bu ñu ñëwee daa ñu mën a indi changement boo xamante ni système bi dana fi jóge te itam rupture dana am waaye nii nii nii nii nii wax ne dana changer Sénégal waxul dëgg ndax secteur boo jël am na crise ci biir jàkk yi da ngay ñu fal ilimaan boo xam ne matul ilimaan nga gis këru kilifa diine yi koo xam ne tabarakallahu nag bàyyam meloon ak imaamam melu ko moo tax toujours xale yi di kaas lu tax ñuy kaas parce que jikko yi ñu xamoon ca mag ña nekkul ci doom yi nekkul ci sëti kon crise bi fépp la moo tax ma ne bakati bakati biladu li xayrati shubaani wal xusnu min zaaka al bukaa abkaa ndax boroom xam-xam yi waroon a jàngale doylootuñu dañoo bëgg kat-kat ku rafet bu ñuy dawal dañoo bëgg kër gu rafet bëgg jongama ju rafet ju jóge nenoo looloo tax ñoom ñëpp seeni xel jëng na jëm ci wut àdduna ni ko nasaraan di wutee looloo tax ñuy yàqante ci suñu biir ngir mën a jege buur te bañ ko waxee sëñ Tuubaa ne ko tee ngaa jege buur yi xaalu liyar liyar kat ma ne déedéet bunti buur yi kay du ma fa taxaw ndax sëriñ ci kër buur weñ la ci kaw jonkon Cheikh Sidi Haaji Malick si ne laa tarkadan xibbi li daari fanaayi fa taxsara fi daari ni duuna miraay kon ci biir qasida bi ma ne ulama u suin fi lbilaadi tajammaru ليدافعوا عن خطة الشيطان ركنوا لدنيا الملوك ركنوا لدنيا الأغنياء وملوكهم صاروا لجمع المال كالنصران xam nga Cheikh na Tidiane yi dafa wax ne boroom xam-xam yi jéng jëm ci buur yi di leen défendre bëgg leen nga xam ne lu buur bi def ci njaajaan njaay yaa ko koy layalal bu fi góor jigéen ñëwee yaa ko koy layalal barakallaahu looloo fi ne même boo demee France gi looloo fa ne jigéen a fay jiite am na borom xam-xam yu koy layal am na góor jigéen boo xam ne ilimaan la bay maye góor ak góor foofu di maye jigéen ak jigéen bu ngeen demee ci internet bi da ko gis jàng na lu doomu soxna di jàng wante dafa jëng jëm ci tabarakallahu euh, lobby yooyu nga xamante ni xeex lislaam a leen tax a ñooñu la Cheikh na Tidiane yi wax ne bu imaamul mahdi ñëwee daf leen daj daf leen di dajale ci benn saako ren di leen waaw moo tax ma ne fal mahdiyul mansuuru tabban lahu tabban lahu fal mahdiyul mansuuru yazbahuhum kama yurwa an Tijaani kon tabarakallahu mbokk yi ngeen xam ne ñun suñuy wayjur dañ ñoo jur rek waaye la def ci ñun yàllaa leen ko sant tabaarakallaahu yàllaa leen ko sant Moussa ba ko yàlla ba mu juddoo Firaw ne da koy rey yaay ja jur rek la ci am ba mu jaaxlee mu ne ko du sama alal la maa la ko jox mu ne ko ah mu ne ko sànnil ma ko ci ndox mi xam nga yàlla bu dee defar day mel ni day yàq mu sànni ko ci ndox mi ndeke da koo bëgg a yóbbu ci kër gu dàq kër yaay ji tabaarakallaahu ba mu ko jógee mu def ko yeneen ba pare di wax ak moom ñun yàlla daf ñuy dénk rek ñun way jur yi waaye li ñuy dénk dañ ciy wax lu ak waaye xamuñu leen kon bu ñu jëlee yóbbuñ ci daara ñu jàng ba xam dañoo war a jël suñuy responsabilité ndax kullukum raay kullukum jooju ñëpp la lam ñun ñëpp ay responsable la lu ñu gis ci kër yi te baaxul nañ ko dénoncé lu ñu gis ci mbedd mi te baaxul nañ ko dénoncé lu ñu gis ci ab barab te baaxul nañ ko dénoncé moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man raa minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi ndax ñett la nit di dindee lu bon nga am autorité dindi ko comme ni ko état amee su boobaa boo dee président de la république boo ko deful ëllëg yow la yàlla di waxal mooy fa in lam yastati euh, euh, fal fal yughayyirhu bi yadihi kooku chef de l' état yi lay waxal ak buur yi fa in lam yastati fa bi lisaanihi kooku journaliste yi ñoo ko moom journaliste yi bu ñu gisee lu jaaduwul nañ ko dénoncé tabaarakallaahu bu ñu ko deful itam bu ëllëgee yàlla dana la ko laaj su la leeree ne nag réew mi dictature fi nekk ki yilif réew mi dictateur la su boobaa boo waxee ñu tëj la wala ñu rey la bu boobaa nag yonent bi sallallaahu nee na na nga ci sa xol waaye bu ko feeñal ah mu ne wante nag fa dalika adaful imaani nee na jullit ragal ba ñemewut a wax dëgg ci pénc nee na loolu mooy jullit bu doyee di yàlla yàlla mosal ci jullit bu doy kon julit bu dëggër moo gënal yàlla jullit bu doy jullit bu dëgër mooy ñemee wax dëgg xatta ci kanamu buur bu saay saay la boo xam ne bu paree ci dëgg ka dañ koy rey waaye léegi dañ koy gis ay bokkat yoo xam ne cent cent mètres yi nga xam ne du dara Euh, dossier bi ñu lay defal MD la tudd MD mooy lan manger dormir lekk ba suur nelaw looloo fa ne dóoruñu kenn Imam Malik dóor nañ ko ba muy bëgg a dee Ahmad ibn Hanbal dóor nañ ko ba muy bëgg dee man kenn ñëpp mën a woon a damay lekk ba suur naan ba man jaamu yàlla nu ma neexee téere ya ma mën woon liir yëpp balaa ko liiree ba mu jeex barakallahu jàngale naa fa tabarakallahu laxdari jàngale fa ashmawi di firil nit ñi jawaahirul maani ak kashful xijaab tabarakallahu su ma génnee ñu wër ma may dimbali nit ñi ca la ma leen tane ndax Cheikh Sidi Hadji Malick dafa wax ne min xusni islaamil mari tarkuhu ma la yaani mu ne fal aaqilu man yasaa li amray nee na ki am xel mooy koo xam ne foo ko gis ci ñaari mbir yi lay doon dirhamun lil maash wa zaadun lil maash buñ la tënkee ci kaso ba mënatuloo doxe say soxla ah léegi am nga temps pour jaamu sa borom mooy wazaadun lil moo tax ñu wago rek di jaamu suñu borom tabarakallahu ba yàlla defal ñu sutura kon ñu ngi gërëm taawoon bu baax di gërëm xalifa bi tabarakallahu ndax ndax itam kenn du jiital kenn du jiital sa kilifa ci xare xare Badr dañu wutal yonent bi tànt ca gannaaw ne ko dangaa cher ci ñun bàyyil ñu dee ba jeex ngay soog a dee waaye fii Sénégal dañuy bëgg nga jiital sa sëriñ waaw ana sëriñ si ana sëriñ si balaa sëriñ si génn wax ñun taalibe yi ñooy génn wax buñ dee tëj ñu tëj ñu buñ dee toroxal ñu toroxal ñu te suñ sëriñ sa ñoom toog fa ñu toog ndax noonu la ñu géré woon yonent bi kon ñun li ñuy def xam nañu ko ànduñu ak sëriñ si ngir ñu ngénteel ni am nañu ak sëriñ si ngir ñu may ñu mbubb wala dàll am nañu ak sëriñ pour ñu may ñu teere yu ñu dëkk am nañu ak sëriñ si pour ñu ngénteel ñu takkal ñu jabar dañoo ànd ak sëriñ si ngir yàlla acheikhu la yushabu illa lillahi Cheikh na Tidiane yi nee na sa sëriñ loo def lu dul ànd ak moom ngir yàlla rek def na tabarakallahu kon nag ñu ngi gërëm Tiwaawan bu baax xalifa bi ñaan tabarakallahu njaboot bi ñaan nan tabarakallahu ah di gërëm itam ki nga xam ne mooy suñu bàyyi tey ci Tiwaawoon ndax moo fay sëñ Abdou Aziz Al Amin di Babacar Sy Al Amin ki tabaski gi yónnee na ma xar mu rëy rëy rëy rëy tabarakallahu ah, wan may itam ne wax dëgg yàlla suñu njaboot nga waaye dafa am nu jamono tëddee def naa lu ne ci suuf waaye ñu dëgëral tabarakallahu si dem nga ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax di gërëm wax dëgg yàlla waa kër sëriñ Moustapha Jamil di gërëm xalifa ba Haj Mansour Sy Jamil yebal na Cheikh Omar mu ñëw seet si mu rëy lool ci man tabaarakallah kon moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm itam tabaarakallahu Kaolack tabarakallahu waa kër maam Abdullahi Niass yëpp lew na ak Medina ñuy beral ngërëm nag tabarakallahu xalifa Medina Baye di Cheikh Mouhamad Mahi Niass Ibrahim wax dëgg yàlla def na lu jafe mooy tudd suñu tur bi ñëpp dawee tudd suñu tur ci sëriñ bi tabarakallahu mu tudd sama tur tudd turu Bah Diakhaté tabarakallahu te ku ne xam ne ne dañ ñoo tooñ tëj ñu waaw dañ ñoo tooñ tëj ñu moom laa wax Bah Diakhaté ma ne ko bi zulmi waaw waaw bi zulmi qad sajanuuka yaa baa fasbirat fa sabru min aqwa silaahi lmuminin waaw bi sijni qad sajanuuka bi zulmi ci tooñ xat ci dëgg-dëgg sa janoo ko leen la tëjee yow baa yaa baa yow baa baa baa jaxat kon nag fas bi ren muñal ndax fas sabru muñ min aqwa silaaxil muminin moo gën a dëgër ci ngànnaayu jullit tabarakallah su ko defee euh, xasida bi ma def dama bëgg jox ko xale yi ndax daanaka li ci nekk dafa am solo te dëppoo ak réalité yi ñuy dund tey ma ne bi zulmi wa stibdaadina saasul bilaada wa yaxkumuuna ka xukmi zi shanaani qad dayacu xaqa sixaafati qad dayacu xaqa sixaafati dayacu xurriyata al aaraai wal adhaani fa sijnu min aqwa silaaxi li mulkihim lam yaxkumu bil cadli wal miizaani bi sijni qad xakamu alayya qasawatan والسجن للعلماء خير مكان حكموا بظلم واضطهاد ما لهم لرجال دين الله أي حنان ولسوء حظهم أساءوا حرمة الأشياخ أهل الفضل والعرفان kon tabaarakallaahu wax dëgg yàlla li ma ci wax mooy tëj leen ba ci tool dafa mel ni léegi réew mi dictature moo fiy dox liberté d'expression leen bëgg a tëj complètement moo tax ma ne xat ca dëgg-dëgg day yàqu sànq nañu xaqa si xaqati expr eh, maanaam liberté d'expression moom ñu ngi koy commencé euh, sànq di ragalloo nit ñi di leen menacé day yàqu xurriyat al aaraay kenn sañatul li nga xalaat nga wax ndax ñu ñuy tëkku di ñu menacé waaye tabarakallahu ñun ñu kaso wax naa leen ne leen doomu daara du ragal kaso waaw doomu daara du ragal kaso ñun ragaluñu kaso tabarakallahu ba tax na li fi amoon bu fi amaatee ñu wax nañu waxee woon loolu moom amul benn problème ku fi amoon nag alhamdulillah sey gis nga ñun noonu wuñu ñi fi ne dañ leen di jàppale ndax ñoo bokk mission dafa fekk ne ñaar bu ñu bëggee defar léeg-léeg ñu xuloo loolu wàññiwul dara léeg-léeg nga gis maçon yuy xuloo ci nii leen ko war a defee wala déet du dara dañoo bëgg rek tabax bi jag jag kon bu fekkee defara leen tax a jóg ñun defar tax ñoo jóg tabaarakallaahu balaa ñoo tëjante dañoo war a jiital waxtaan ba noppi sëñ bi kat nii nga waxee baaxul mosuñu laa corrigé ci waxaayu bu ëllëgee waxeel ne waxeel ne waxeel ne muy waxtaan tabaarakallaahu waaye jël rek tëj moo ma ne bi sijni qad xakamu alayya xasaawatan waaye wa sijnu lil ulamaa'i xayru makaan kon tabarakallahu ñu ngi gërëm Kaolack bu baax di gërëm itam tabarakallahu Medina Gonaas ndax jot nañu seeni ñaan jot nañu itam tabarakallahu seeni ndimbal ngeen baal ñu rek ñu tënk ko dañ tax bañ leen a téye di gërëm itam Touba ci jiital xalifa bi tabaarakallaahu sëñ Muntaga ndax sëñ Modou Bousso Dieng moom a njëkk a fekk jig ne ma ñun waa Touba ñëpp ñu ci sa gannaaw tabaarakallaahu sama xol set tabaski jot sëñ Abdou Mbacke Baara Dolli yónnee ma xar mu rëy rëy rëy rëy tabaarakallaahu kon teg ci itam enveloppe bu duufa duufa duufa duufa tabaarakallaahu donc ci sot la bokk domp ci sot la bokk tabarakallahu kon Touba la leen waroon sama digganteeg ñoom def nañu ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm itam Njaasaan di gërëm Canaba di gërëm Laayeen di gërëm itam tabarakallahu waa Koungheul yëpp Sine Maxtaar di Koungheul di di gërëm Arafa di gërëm Jaamal di gërëm Dimash tabarakallahu di gërëm Pire di gërëm itam Andoulaye tabaarakallaahu barab yi yëpp ay barab yi diine lañu saa bu ñu jullee ba noppi daañu wax ne nanu ñaanal imaam Ndaw ak Bah ñu génn ci kasa kon nag ñu leen di gërëm di leen sant ñu ngi gërëm abnaul xadra ak tijaniya te Serigne Fata Sarr jiite ko tabaarakallaahu ñoom itam ñëw na joxe seen ndimbal di gërëm itam kalimatul xaq tabaarakallaahu eh, kalimatul xaq ñooy samay nitu bopp tabaarakallaahu juróom-ñeenti group la yoo xam ne c'est international foo dem ci àdduna bi am nañu ci bokk may jàngale tabaarakallaahu fan na yëpp boole nit ñi ñu xamante te bokkuñu gox yu ñu nekk tabaarakallaahu ba mel ni ñoo bokk ndey ak baay ñoom itam bi mbir mi xewee daanaka ñoo taxawu sama kër dajale xaalis bu bari jox sama soxna boole ceeg tabaarakallaahu ku ñuy wax Kamal Samb bokk ca kalimatul xaq di sama nitu bopp ne ma kër gi maa koy yor ba keroog ngay génn kenn dépense manqué kon sëñ Kamal ñu ngi lay gërëm di gërëm famille Alxaaji Maxtaar Samb yëpp ci sa taxawaay euh, di gërëm itam tabaarakallaahu euh, DG Babacar Bey dafa am lu ñu boole maag moom muy quartier bi ndax dëkkandoo la waaw te dëkkandoo itam rafetal jëm ci moom ak jaamu yàlla man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yuxsin ila jaari wala fala yudi jaara kon def na lu rafet moom itam andil na ma xarum tabaski mu rëy rëy rëy rëy rëy tabarakallahu di gërëm itam tabarakallahu euh, Maamin Haydara tabarakallahu taxaw na taxawaayu shérif yi ñëw na seet si ma yëkkati enveloppe bu diis tabarakallahu jox ma di gërëm itam famille imam Gallo Diagne mi nga xam ne fii la ñu ne fii la nekkoon doon ñu jiite def nañ délégation ñëw ci sama soxna yëkkati enveloppe bu diis tabarakallahu jox ko euh,